ñuy suñu victimes yi nga xamante ne dañ ci am ay wëllëre eh, am ci ay waajur am ci ay nijaay am ci ñëpp eh, ñuy ñaan yàlla yàlla saafara seen mbir moomu ndax métti na ndax boo nekkee nit koo xamante ne sa doole bariwul nga dajale sa xorom ak sa lépp eh, defar ci say pantare ñëw dëkk fa ak sa njaboot ñu nga xëy ñu jaay la doole daaneel la ñëw daaneel sa kër mooy yàq nañ sa àdduna ndax ndeysaan am nañu si ñàkk seen bàkkaar ngir naqar loolu ñu ngi ci woo président Macky Sall di ci woo euh, gouvernement bi yépp ñu jàppale suñu victime yooyu suñu nit ñooñu euh, ñu delloowaat leen seen suuf ndax kenn kooku di soxla euh, suuf si kenn la moom kese fas koo yéene am nu mu ko defee waaye victime yooyu ndeysaan ku nekk njaboot la boot kon maa ngi ñaan ñëpp ñu jàppale leen Eh, ñaanal leen njekk ci état bi ba yàlla may leen ñoom ñu jotaat seen suuf ndax ñoom fa ñu war a jaar yëpp jaar nañ fa eh, ba yàlla may leen ñu am ci ay ndam gañe te seeni kayit yoo xamante wane na ni ñoom gañe nañ seen suuf kon nañu jàppale leen ñu delloo leen seen suuf ku sañoon almadi ngay jënd te sooy jënd titre foncier ngay jënd waaye doole yemul te ndeysaan am na ñoo xam ne dañuy natt pour jënd terrain am na si ñoo xamante ne seen i doom ñooy nekk Europe fekk dañoo jaar si gaal yi sonn ba yegg fa yónnee leen pour ne leen jëndal kër waaye eh, su ko defee eh, kër gi nga mën a am ngay jënd ndax kër moom da ngay ñëw jënd jaaree ko si mairie nga am kayit mairie am délibération wala nga am eh, boo amee délibération jaaree ko si mairie mën nga dem ba kale sax am baay nii nga am titre tamit mën nga ko am mais buntu am kayit moom si mairie bi ngay njëkkee. mais ki amul doole jënd titre foncier moom délibération lay mën a jënd wala mu jënd bàyyi waaye dooleem foofu la yem waaye li ciy nekk rek ndeysaan da ngay gis ñoo xam ne amuñu doole ñëw jënd ay délibération euh, site ba nekk domaine national ñu nekk ci zone ba dëkk fa ba construire fa ay bâtiment ñeneen jaaree fële dem wuti def ko ay titre foncier ñëw daaneel leen jëlee leen nañu rafetal ñun ñëpp ñu xam ne lépp lu am ci suñu réew dañu war a mën a toog waxtaanee ko jàngat ko xool solution man daal damay ñaan président Macky Sall toj bi moom ñu ñu bàyyi ko ndax réew bu néew doole la te réew bi ñu ngi ci ay feebar su ñu amee leen kenn koo xamante ne juum na ba empiété si dara loo xam ne waru ko def nañu waxtaan ak moom xool solution bu ñuy def waaye toj bi moom suñ ko wàññee moo gën ndax amuñu doole boo xam dañuy tabax ñuy toj te ay néew ji doole rek a fi am crise bi kon day gën a métti te su méttee day métti si ñun waaye day métti si président Macky ndax du bëgg njabootam wax yàlla ñoom it ñuy toog di sonn